franchement mën naa wax ni gàcce ngalaama il faut féliciter xale yi féliciter leen moo di wax leen ni leen euh, ñoom ñoo gagné gum léegi nag benn but euh, ñoo gagné et pour pour que ñoom ñu passé beneen tour bi il faut pas que ñu bañ ñu jël but wala il faut que ñu def match nul foofu ñoom dugal nañu fii il faut pas que ñu dem pële ñu ni dugal. l'essentiel c'était de gagner maintenant tout le monde sait que on a joué contre une grande institution. Et on a toujours nos chances, rien n'est encore joué. Maintenant, il faut mettre dans la tête des gamins qu'il faudra être sérieux le match retour et défendre leur vie, défendre leur, leur, leur le, le, but qu'il faut, qu'il faut, qu'il faut, le but euh, euh avantageux. Et c'est ce qu'il faut leur dire. qu'est-ce qui a manqué au, Sénégal Non, rien ne les a manqués, ils ont gagné. On sait qu'on joue contre une institution. Aujourd'hui, il faut savourer. Ils ont gagné, félicitations à eux, c'est le plus important. Ah oui, il y a un autre match retour. Aujourd'hui, mieux vaut de gagner que d'aller là-bas en perdant 1-0 ou en faisant match nul. On a un, but euh, à sauvegarder et je crois que si on met ça dans la tête des gamins, ils sont rek. man Dominique. Dominique Mendy waaw. waaw noo gisee match bi tey. match bu diir la ah. Hmm. na si ñun mais. gañ mais dañ leen fekk seen dëkk dafa leen affaire incha allah. non dañ leen gañ te duñu encaissé incha allah. Hmm. loolu lañ bëgg qualifié dugg phase poule. loolu yàlla nañu ko yàlla may daal incha allah.